na am na ñoo xam ne juróom-ñetti waxtu ci suba ba juróomi waxtu ci ngoon ñoo xam ne guddi ba guddi la am ndox bi boo fa demee bëri na ay gox yoo xam ne amuñu ndox maanaam ndox mi duñu ko gis yéene kaay nee tax na dimanche bi xam ne moom la ñu génn ca diiwaanu Ndar ma Saint-Louis foofee nag askan wa nga xam ne ñoo fa yeewoo maanaam ñàkku ndox gi tax na daal ñu mer ba maara day taali yéene kaay gi nee na Ndakaaru tamit bëri na ci ay gox yoo xam ne maanaam amuñu ndox yéene kaay gi nee na séenoo gi nga xam ne andi nañ ko ci Sénégal ngir nag mu yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum séddale ndox gi ndox mu mucc ayib ndox mu doy jamono ji amul lenn lenn loo xamante ni CRO maanaam soppi na ko ci li nga xam ne nag moo fi nekkoon yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak Les Échos nee na Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom la dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ndox mi ak wàllum assainissement na xoolaat boppam xalifa général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour jamono ji mer na lool lool moom Serigne Mbaye Sy Mansour mer na lool ki nga xam ne mooy Serigne i Thiam ndax Serigne Mbaye Sy Mansour nee na dafa am ay liggéey yoo xamante ni jëm ci wàllum assainissement ci jumaa yi nga xam ne ñoo nekk Tiwaawoon liggéey boobee nag dafa yéex ba maara day taale te nag Serigne Mbaye Thiam buñ ko ko waxee daal muy taafantalu naan waaw Ageroute moom mooy ñaari milliards ñi nga xam na ñooy waa ONAS moo tax liggéey bi yéexa Serigne Mbaye Sy Mansour jamono jii daal en tout cas dànkaafu na bu baax a baax Serigne Mbaye Thiam yéene kaay gi di mi quotidien nee na en tout cas gi Serigne Mbaye Thiam war nañ cee wax yéene kaay gi di Vox waa Y'en a marre ak waa Fra France ñoom nag ñoo ngi woon ca Dugar Dugar gi nga xam ne jamono jii nag sonn nañ ba maara a marre lijjanti yéenekaay gi di Vox Populi Guy Marius Sagna xëy la ñuy ci lu jëm ci wàllum suuf yi Guy Marius na nag budget yi nga xam ne moom la ñu amal ci Sénégal lépp ñoo ngi koy jëlee ci njuuj njaaj njuuj njaaj yi nga xamante ne état bu Sénégal moo ngi koy def ci lu jëm ci wàllum foncier bi Mamadou Lamine Diallo naqarlu na bu baax a baax li nga xam ne moo xew diggante Israël ak Palestine Mamadou Lamine Diallo na cey bu fi Sidy Lamine Niass nekkoon yéenekaay gi di enquête xëy wax ci Idrissa Seck ak Macky Sall ma mburo Vox yéene kaay gi nee na Macky Sall mi nga xam ne jëli woon na Idrissa Seck jubluwaay bi moo nekkoon na coalition Benno Bokk Yaakaar gën a am doole gën a yaatu waaye nag li nga xam ne moom la ñu nemmee mooy Idrissa Seck bi mu ñëwee ànd ak Macky gis nañ ne nag maanaam ay conflit ay jàppante yu tar la ñu gis ci ñi nga xam ne ñooy allié Macky Sall yi yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca diwaanu Paris la France xëy nag waax ci sommet bi nga xam ne doon nañu ko fa amal jëm nag ci wàllum financement réew yi nga xam ne ñoo nekk ci dëndu Afrique te nag Emmanuel Macron doon ko njiitu réew mi di Macky wax na ci nag li nga xam ne mooy relance économique bi wax na bu baax baax ci li nga xam ne mooy bor bi nga xam ne yenn ci réewu Afrique amel nañu ko waa bitim réew di sàkku ñu daal leen koy bàll njiitu réew mi di Macky Sall wax na ci TDS droit de tirage spéciaux yi nga xam ne FMI moo ko créé woon ci atum wax na ci système financement yi yéen kaay gi de la Tribune nee na en tout cas sommet li gudd gàtt mooy Emmanuel Macron njiitul réewum que président yi nekk ci Afrique yëpp gurgurle na te nag solution bi maanaam solution bi ci Sénégal ak ci Afrique maanaam mënut a jaar ci France yéen a kaay gi de la Tribune nee na en tout cas Afrique muy Sénégal am nañu ay jumtukaay am nañu ay moyens am na lu leen yàlla séddee loo xam ne seen wàllug développement ma ngi ci seen i gox maanaam développement Afrique ma ngi ci biir Afrique te mënut a jaar ci fi nga xam ne mooy France te nag Afrique bu ñu bëggee développé yomb na loola li nga xam ne moo jëm ci wàllum guerre ak wàllum détournement gi nga xam ne maanaam nemmeeku ko fi lool sax yéen li nga xam ne moom ngeen war a xama mooy France France France ngir mu suqaliku maanaam nag recherche yi nga xam ne ñoo nekk ci dindu Afrique ñooy suqali France France Afrique moo koy suqali yow mi nga xam ne nag yaay suqali France ana nan nga mën a demee ci réew moomee naan ko ñëwal suqali ma ayaa bi mbang satala kuru sañ yéen a kaay gi di direct news na cadre yi nga xam ne ñoo bokk ci APR jamono ji nag ñoo ngi song professeur Abdoulaye Bathily te boo xam ne wax na xalaatam réew mi tax nag ko song ak di ko saaga a ñaaw te nag ñi nga xam ne ñoo koy xas ko song li li def ci réew mi amul kenn si ñoom koo xam ne maanaam daan na ko say def te Abdoulaye Bathily maanaam dañ na leen lu nekk ci réew mi te patrimoine national la yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na médecin yi ak ñi nga xam na ñoo ame ay jàngoro nekk ci hôpitaux yi jamono ji nooyeetuñu nooyeetuñu la ko war a nag mooy gaz anesthésique bi ci boppam jamono ji moo amutul ci hôpitaux yi yéene kaay gi di Libération xëy dañu xibaar naan ñu diggante Montréal ak Ndakaaru ñi nga xam ne ñooy trafiquant drogue yi léegi drogue bi dañ koy jël di ko jox ñi nga xam ne ñooy GP yi yéene kaay gi di Rewmi Quotidien nee jamono ji ñoo ngi dox nag wuti jàmmi Casamance ndax bu ñu sukkandikoo ci Ibrahima Gassama mi nga xam ne ab journaliste la xam lu bare bari ci lu soxal wàllum solution jàmmi Casamance xëy na nag am njort bu rafet ndax nee na am na rencontre boo xam ne waa MFDC doon nañu ko def ni ki démb ca diwaanu Cap Skirring yéene kaay gi di record ak stade xëy diñu xibaar naan ñu Coupe de France diggante Paris Saint-Germain ak Monaco revanche wala confirmation Coupe d'Italie tey jii la bu 19h jotee diggante de Turin ak Atlanta yéene kaay gi di stade xëy diñu xibaar naan ñu Benzema